étage ñetteelu étage presque gis ngeen soxna si toog foofu kii toog ni diw tari ay alxuraanam gis ngeen ko sol yëreem nekk am moitié nu ma xamul naka la def ba jaar fii naka la def ba jaar ba yéeg ba toog fii man moo njëkk a nekk sama problème donc moo na yàlla rek man ñun dinañ gis lu ne parce que si jamono ñu toll nii suñu borom dina wane lu ne dinañ gis lépp. nag gaa yi dañ ko doon jéem a bëgg di wàccee léegi benn booy mën a ko bu ko laal dañu woo sapeur woo police ba pare yee borom kër gi parce que immeuble bi immeuble cinq étage la te fi mu si toll sori na mu ngi ci digg bi gis ngeen ko nii donc voilà gis ngeen ko nii yàlla yàlla dolli sutura li nga xamante ne moom la ñuy teg suñu bët mu bañ a nekk lu ñaaw mu ngi wax wa tamiran ku la ak taaxin taddaru bi naa xablal wasurla naa yàllaahu yàllaahu waaw ñu ngi ci ba tey rek ak suñu femme bi nga xam ne kenn xamul fu mu jaar ñun moom xam nañ ne affaire yi bu jollee dëgg dëgg dina ko joxe affaire yi bu jollee dëgg sapeur yi ñëw nañu pour jël si ko waaye xam na ne bu jollee dëgg dëgg dëgg dëgg bu jollee dëgg dëgg dëgg dëgg wallaay voilà ñu koy yëgal waaw bàyyil sa yaram rek. maanaam jëli téere bi si di ko. essaye sa du ko wàccee. Ibrahima xale yi loxo li di yoxu nit. yow da ma fay si bor ni laa yónni waaye fii mënoo fay lekk kenn kenn kenn kenn mënoo fay lekk kenn ndax xamoo ñëpp lan leen seen ndey bootee dëgg mu xalaat mi kat seen ndey lii fi police instant yi dafa commencé xoox son pompier ñëw nañu xamuñu ni ñuy wax ba jëlee ko fi mu ngi nii donc téere bi mu takkoon ci bopp bi nga xamante ne moom la fanaanoo téere boobu dafa mujj a dagg ci loxo sër bi yére yére bi daf ko musóor ci bopp bi donc ki xam ngeen ne du xale donc li ko yéegal fii nga xam ne pompier sax mënuñu wàcc fii gis nga leen nii pompier sax mënuñu wàcc fii pompier ñemewuñu wàcc fii lu ko yéegal fii te jaaro ci benn parenteer parenteer yëpp seen bor ñu ko tëj mooy wax ji waaw Sénégal nag maslaa bi moom dafa bari yéen xam ngeen lépp maslaa bi dafa bëri. noonu daal. loxo li di yoxu nit. yow dama fay si bor dañ laa yónni waaye fii mënoo fay lekk kenn kenn kenn kenn mënoo fay lekk kenn ndax xamoo ñëpp lan leen seen ndey bootee dëf mu xanaa mi kat seen ndey li fi